ne ñoo ak yow ñoo ko bokk ne di bég lool Cheikh Madul Bachir ne Sidi Man nekk ci sa dikk gi ne di rafetlu kaddu yi ne kaddu yi kat ku ko dégg xam ci xol la xam ci yow ne kon mi ngi lay sant bu baax di la gërëm ne di la yóbbante nag am nuyoo si sëñ Babacar si. mi nga xam ni mooy xalifa général di Tidiane di la yóbbante nuyoo ci sa mag nee di Cheikh Cheikh Maodo Malick Sy di ko nuyu bu baax di ko sant nag di la gërëm mais yow si di seen si di moom ak délégation bi nga àndal nee boo turee seen Cheikh Gaye nee di soppeem nee du koo xaali ki amul seen basiru sagal nee ba duna bépp xam nañ ko ak ñu si des ñëpp rek dina gërëmaat si bu baax nee ku la xam xam sa yéene dana nee yàlla dafa def ci yow na sa waajur wa meloon rek nee ci xol bu rafet bu laal nee yàlla defa la ko mais kon ñi ngi ci li njëkk tey di ko fëttali wax na tey mais boo gisee say kilifa te di la yónni la ca jiitu mooy xam ni nga saware Touba kon ñi ngi lay bu baax di la gërëm di ñaan yow itam suñu borom dëgëral la kattanoo la ba nga yeggale mission bi ndax waxtu wu yaa ngi dëpp. yaa ngi rafetal boole ci ci ik manat kon nag ñu ngi fedd ne wala li nga xam ni moo doxoon te seen kilifa yu bay Cheikh El Hadj Abdou Si ak sëñ Abdoul Khadim ak su bay seen digg ak yéen ne yow nag da nga koo mel cofeel boo xam ni ne kenn foogul fu xamul fu mu ne Cheikh Mouhamed Sëñ Cheikh Mouhamed ak cofeel mun ta weesu fu mu nekkul te waru koo yëg te xamante wut ak ñoom ngay wéet ak ñoom mu naan leen ñaanal leen Serigne Bachirou ne loolu kenn mun koo paase ndax ñaanal ma yow sa jëmm rek doy na waaye di ko santaane waaye loolu yéen a féetewu ko kaw ne yàlla rek la ci mën a fay ne nuy sa bokk yi nga fekk nag. di sëriñ Malick Mbaye ne sëriñ Malick Mbaye day wëla leen bu yàgg a yàgg dib soppeem ak Mamadou Mansour Ndiol ne ñoom ñi fi teewal sëriñ Moustapha Sy ibnu Cheikh Ahmad Tidiane Sy mooy ne moom it ni di ko nuyu di ko yóbbanteem nuyoo ci sëriñ bi di ko sant di ko gërëm ne ndaka jekk mbay nii rek na koy defee lu fi xew rek nga andi ko ñoom ci ndigalu sëriñ bi kon jottali ko sëriñ bi kon li nga seere léegi rek bu xar kanam yi gisante wul xol yaa ngi gisee ndax lu fa xew ndaawam ñëw ay teraangaam ñëw kon ñu ngi lay sant bu baax di fedd di diggante waajuram ak njabootu Serigne Touba jërëjëf. ñii nag ñi nga xam ni ñoo fi teew ci wàllu àdduna gi teewal fi ay parti politique te ñi teewal fi ñu bokk ci kujje gi ne mi ngi tàmbalee waaye nag sàmmloo ko sàmm na ko bu baax kon seen Cheikh sëñ bi ne mi ngi lay sàmm këllëre gi nga xam ni xam na ni ko jàppee ndax ñu dëkk ci dëkk bi ñëpp xam nañu fi nga ko teg ak cër bi ko jox dara gis yo boo duggoon këram ca biir néegam ne fotoom rek nga fay fekk loolu nag ab cër mënu ko passé ginnaaw bokk gi ne mi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal barkab Sëriñ Tuubaa sunu borom dimbali la te dëgëral la baax ne sëñ Cheikh ku mën a rafetal nga te kenn du la dégg wax lu ñaaw loolu am na solo lool xam na fi nga bokk kon ñu ngi lay yóbbanti nuyoo ci ki la ko fi teewal di président maître Abdoulaye Wade ne li ma wax léegi ci diggam ak sëñ Abdou Khadir doy na sëkk. ne nguur boolewu ko sëñ Abdou Khadir ak Ablaye Wade ne loolu lu la te lim ci mën a rafetal lépp it li ko Cheikh Modou seereel sëñ Mountakha doy na sëkk seere kon ñu ngi koy ñaanal sunu borom sàmm ko gën ko wéral gën ko fee bàyyi ba mu yàgg jiite réew mi yàgg ci réew mi mu yàgg gunge réew mi ci barkeb Serigne Touba.